اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو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 وأسبلن علينا ربي حافية وهب لنا الخصد في ديرين يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالهنا من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رسل واكفنا زللا واطلنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما ننحو ونقصله وهب لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل سي صعب وسحرا ويسرا كل سي تحصير يا الله والطف بنا وخونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصليا على النبي وسلمه واقض به حاجة كل مسلم آمين يا رب العالمين تقبل الله منا جميعا آمين mi nga xam ni sunu jotaay bii sunu jotaay bii moo ko waral moom Seyduna Muhammad sallallahu alayhi delluwaat santaat yàlla bu baax. nee di delluwaat di santaat yàlla bu baax. waajur wu ne. nee waajur wu ne. lii rek ngay ñaan yàlla. lii rek ngay ñaan yàlla. jóge fi. jóge fi. am doom yu mat doom. am doom yu mat doom. yu mën a taxaw sa taxawaay. yu mën a taxaw sa taxawaay. ngir mottali sa yéene ji nga amoon. ngir mottali sa yéene ji nga amoon. ci bis bu tedd bii. ci bis bu tedd bii. kon Alaaji Ndaama jërëjëf. kon Alaaji Ndaama jërëjëf. yal nañu ko yàlla fayal. na nañu ko yàlla fayal. lii ñu fi jàng ci alxuraan. ne lii ñu fi jàng ci alxuraan. nga xam ne benn xarafu alxuraan rek. nga xam ne benn xarafu alxuraan rek. bu ko yàlla nangoo. bu ko yàlla nangoo. defar na addina. defar na adduna. ak alaaxira ak alaaxira. kon lii ñu fi jàng. kon lii ñu fi jàng. yal na ko yàlla nangu. yal na ko yàlla nangu. te yàlla dotti ko mu doon ay yërmande. te yàlla dotti ko mu doon ay yërmande. di ay di ay géeji leer. di ay géeji leer. di ay dexi yërmande di ay dexi yërmande yàlla sotti ko ci kawam yàlla sotti ko ci kawam mbooleem waajuram yu baax yam fa fekk mbooleem waajuram yu baax yam fa fekk mbooleem doomam ya ko fa fekk mbooleem doomam ya fa fekk ak mbooleem jullit yëpp ak mbooleem jullit yëpp sëñ xaadim jërëjëf sëñ xaadim jërëjëf lii moo waraloon ne lii moo waraloon sa waajur jëloon la sa waajur jëloon la dëlal la ci dëkk bii dëlal la ci dëkk bii dëkk bii nag dëkkub sëriñ Masamba ne dëkk bii dëkkub sëriñ Masamba lépp lu ñu fiy def. lépp lu ñu fiy def. sëriñ ma ko moom. sëriñ Massamba ko moom. yow nag sa taxawaay rafet na. yow nag sa taxawaay rafet na. am nga xam-xam. am nga xam-xam. sa yar mate na ko. sa yar mate na ko. sa maanu mate na ko. sa maanu mate na ko. sa teggin mate na ko. say teggin mate na ko. te woykatu arab bi dafa wax ni. te woykatu arab bi dafa wax ni. ilmun bila adabin ka shajaratin bila samarin xam-xam lu mu bari bari. xam-xam lu mu bari bari. bu ca bu ko teggin lalul. bu ko teggin lalul. amul njariñ amul njariñ. te fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. sa lépp matale na ko. sa lépp matale na ko. xat mu bii nga jàng. nee na xatmu bii nga jàng. daanaka ñun ca kokki lañ ko mokkale. nee na daanaka ñun ca kokki lañ ko mokkale. rafet na. rafet na. sell na. sell na. tege na ci xam-xam. tege na ci xam-xam. bariwaa na ñoo xam ni. bariwaa na ñoo xam ni. ndax. duñ li ci ëpp duñ ko ndax li ci ëpp duñ ko maas bari waa na ñoo xam ne boo leen ko joxoon bari waa na ñoo xam ne boo leen ko joxoon dañuy damm araf yëpp dañuy damm araf yëpp ba maanaa wi yàqu ba maanaa wi yàqu ñaan gi nga xam ne moom lañ ci jublu ñaan gi nga xam ne moom lañ ci jublu bu araf yi yàqoo bu araf yi yàqoo bu masque wi yàqoo bu dammoo bu dammoo dootul amati njariñ kon fa tabaarakallaahu jërëjëf kon fa tabaarakallaahu jërëjëf sëtub sëriñ Touba sëtub sëriñ Touba lii lañ koy doyee lii lañ koy doyee ndax al ilmu al ilmu yarfau baytan laa imaada lahu wal jaxlu yuqfidu baytalan si wa sarafi xam-xam. xam-xam day yëkkati askan. day yëkkati askan. bu fekkoon askan woo xam ni. bu fekkoon askan woo xam ni. dañu leen a xeeboon démb. dañ leen a xeeboon démb. kenn nawloowu leen woon. kenn leen woon. faalewu leen woon. kenn faalewu leen woon. bu fa xam-xam duggee. bu xam-xam duggee. da koy yëkkati da koy yëkkati. ba mu nekk ca kaw. ba mu nekk ca kaw. ba mu sut fépp. ba mu sut fépp. waaye askan. waaye askan. lu mu màgg màgg. lu mu màgg màgg. bu ñu demee ba xam-xam jóg fa. bu ñu demee ba xam-xam jóg lu mu kawe kawe. lu mu kawe kawe. ci suuf rek la jëm. ndax xam-xam. ndax xam-xam. mooy lépp mooy lépp. jërëjëf jërëjëf. lii nag lii nag sunu xol sedd na ci xol sedd na ci. ndax alxuraan. ndax alxuraan. kii boroom guddi gii. kii borom guddi gii. keroog laylatul isra wal mi'raj. keroog laylatul isra wal bi ko yàlla invité mu wuy si ko. lëm ñu andil sëriñ ci la ca gën a màgg alxuraan la. kon tey buñ fi jàngee kaamil yi ñu fi jàng buñ fi jàngee kaamil yi ñu fi jàng dañ ci sant sunu borom subhanahu wa taala ndax dafa am ñetti nit ñoo xam ni dañ daan faral di tukki benn bi suñu romb armeel yi jàng ñetti xul wallaahu sànni ko ñi tëdd foofa yàlla dogal ca déwén sa ñu jaaraat fa dégg ñi nekk ci biir bàmmeel yi di yëngatu muy new yi kenn ci ñoom yàlla may ko kasfu mu laaj sunu boroom ni ko ñii ma dégg ci biir bàmmeel yu ñuy yëngatu lan moo ko waral yàlla ne ko daaw bu ngeen fi jaaree sànni woon leen ñetti xul wallaahu moom lañ yor di ko séddoo daaw ba ren te jeexul kon xul wallaahu ahad yemut ak dara buñ ci jàngee nag ab lim te lépp nekk alxuraan ñu dotti ko ñooñu sottil leen ko ñaanal leen ko yàlla yàlla nangu ñaan jataay bi nag fa tabaarakallaahu rafet na sell na ndax suñ monk yi nga xam ne si ñooy waa ndànk ñooy ñoom ñun ñooy ñoom ndax genn kër la ndax Cheikh Sidi El Xur Cheikh Sidi El Mokhtar Al Kunti yu mu mag mi nga xam ni moo leen meññ dafa jóge ci jàkkam fajar ñëw fekk benn sëtam muy tracé mu sàllasul Xasaali bi mu génnee fekk sët bi nekk ci di kër kër yi mu ne ko lii loo koy doyee mu ne ko xanaa wut ci àddina maam ji Seex Sidel Moxtaar kaan bi mu yoroon sëpp ci bëtu ci bëtu xaatim yëkkati ceen urus topp ko mu sëppaat ci beneen yëkkati ceen urus topp ko ba bëti xaatim yëpp mat sët bi jóg laxasu ko ne ko maam jàngal ma lii mu ne ko lii de maa ngi ko jànge woon ci daare wattaqullaaha wa laa bu ngeen ragalee yàlla lépp lu ngeen bëgg yàlla xamal leen ko kon yéen kunta ñoo ngi leen di siyaare bu baax di rafetlu seen jataay ndax fii seen këra ndax lii mooy kóllëre démb ndax wa awfu bil ahdi inna allaha kaana masuulan bu ko alxuraan di wax li tax alxuraan di ko wax fa tabarakallahu matal ngeen lépp buñ leen fi fekkee rek daanaka ñun booba biñ duggee fekk leen fi rek mënoon nañoo wàññi ko dem ndax kenn du weddi sa bopp ndax yéen yéen ñun ñun ñooy yéen kon fa tabarakallahu ñu ngi leen di ziyaara di ziyaara Serif Dieng mi nga xam ni maamom moo waral guddi gi ndax keroog Seyduna Adama bi ko yàlla bindee dugal ko àjjana ni ko walaa taqrabaa haasihi sajara fa fatakuna mina zalimina yow ak yow ak sayyidatuna hawa garab gi bu leen ko laal ndax bu ngeen ko laalee da bokk ci ñi nga xamee ne way tooñ ngeen bi leen iblis ñëwee man man ndax iblis yàlla da ko may kattan muy dox ci diggante yàpp nit ak deretam may leen kattan xamal leen ni garab gi seen borom di leen aay day li muy bañ rek mooy ngeen dund seen dund di sax laal leen ko di leen jax-jaxee ban laal ko ba yàlla génn leen keroog ba muy jéggalu sunu borom subhanahu wa taala moom sayduna adama moom sayduna adama dafa wax ni ko yaa rabbi ixfir li bi xaqi sayduna muhammad sunu borom ni ko lu tax nga may jéggulu ci jëmm joo xam bindaguma ko mu ne ko koro bi nga defee bi nga ma defee ban tëral ma nangami junni at def ci man ruu bi ma yëkkatee sama bopp xool ala xawaa imil ars kenn yi nga xam ne moo téye aras damaa gis ñu bind fa laa ilaha illa muhammad rasulullah ma xam ne ku la ñaan ci barkeem da nga ko jéggal booba la ko yàlla jéggal kon sërif jaay ñi ngi lay ziyaara di la nuyu bu baax di rafetlu jataay bi fekk ñi nga xam ñoo moom kër gi muy waa kër sëñ Massamba sëriñ Abdoul Aziz mii kokki la ma fekk 1980 moom magam sëriñ Omar ak sëriñ Abo ak sëriñ Abdou Fatah yàlla ko yàlla dolli yërmande sëriñ seex seen mag indi leen fa ñu jàng alxuraan ba mokkal di boromi xam-xam bokk ci kër sëñ Masamba di sëti sëriñ Modou di sëti ma Masamba seen waajur doon sëriñ moodu fa xëri mook sëñ Abdou Latif mii nga xam ne sunu goro la yor sunu dakk di nit ku baax nga xam ne at mu jot gàmm yi bari na ci réew mi fépp a ngi woote waaye ñoom waxtu woo ñëwee fii ci Touba Fall fa tabarakalaaw da nga leen fekk loolu nag du dara lu dul mooy fedd li kóllëre kon sëriñ Abdoul Aziz ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla mu jàppale leen waaye nag noonu ngeen mën a mel ndax sëriñ Xaadim mi ngi fi fa tabarakalaaw sëriñ Mouhamadan yow day mujjawoo bàtt bi mu leer ndax lii nga def léegi ñu jàng alxuraan ji ba pare nga ni kenn du jàng xaat kenn du jàng xatma wi te moo du ñëwul day wane ni fa tabaarakallaahu yow Moodu benn ngeen sotti ceeg def def ci la te noonu nga ko waxee ci Moodu Ousseynou mais bu tarde woon fa tabaarakallaahu noonu nga koy waxee Ablaye Ndiaye mais di seenub jaam di sunub jaam bu tardé woon noonu nga koy waxee kon lii mooy ak mbokk dafa am góor goo xam ne nag bi mu demee bay bëgg génn àdduna dafa dajale njabootam woo leen ba ñëw mun leen dem leen taxane li ma ñu dem taxani kenn ku ci ne indi sag matt mu daal koy boole mu doonu say mu yëkkate jox leen ku ci ne la dammal kum jox doo mën a damm ba njaboot gépp mat mu daal di tas say wi ni leen kenn ku ci ne jël ci yéen jëlal seen mat kenn ku ci ne jël matam mu ne ko dammal mu damm mu ne ko bu ngeen booloo nii ngeen di mel waaye bu ngeen tàqalikoo da ngeen di néew ndax aljamaa rahma mbooloo ci la yërmaande nekk kon fa tabaarakallaahu sëñ dan yal na la yàlla jàppale yàlla na yàlla fay di nuyu seen xarit yi fi nekk yëpp seen wëllër yi fi nekk yëpp tey man sama kàdd ci bari ndax foo dem jataay fekk fa fekk fa say mbokk ñuy waa ndànk nee toog sa rakk nekk fi li nga xam mu xam boo xamee benn mu xam ñaaram loo man mu man ñaaram fa tabaarakallaahu daanaka sa kàddu du bari kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla yàlla jàppale ñu ndax fii di tuubaa Fall dëkk la boo xam dëkk bi yërmande la dëkk la boo xamante ni si ni wal tey bu baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi isni rabbihi day bërëb boo xam ni maanaam barke moo fi wàcc barke boobu fi wàcc nag moo tax njaboot gi fi nekk yàlla teg ci ñoom loxo yàlla jàppale leen jumaa jii ngeen gis mun doon xool dëkk bi ñu fi dëkk rek duñ def lu toll nii mënoon naa gën a yem waaye nag seenu xër ak seenu bëgg lu baax ak seenu di dàkk àddina di xam ni maanaam bërëb bii li fi ñaan yàlla li fi boroom mi ko sanc ñaan te sanc ko ci ndigal muy ndigal a seexul xadim te sëriñ tubaa wax ni laa tafalu sayan bi xayri isnin fal isnu sartun fii xabuli sani bu leen jëf dara lu àndut ak ndigal ndax jëf mu ànd ak ndigal sart la ca ne ngay jëf sunu borom nangu ko fa tabaarakallaahu moo tax sumb bii nga xam ne sumb nañ ko yàlla na ko yàlla motti la ñu dem ba di koy inaugurer te ñëpp fekke ko ci barke Seexul Xadim maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di yëkkati kàddu gi di ko jox sunu mbokk yi ndànk yi ñu sànni ci ay kàddu di nuyu imaamu Njaasaan di rafetlu jataayam imaam Kunta ñu ngi lay ziyaare bu baax di la nuyu ah. benn famille la ndànk ak Njaasaan benn bopp la ñee dañoo nekk fee di liggéey ñee nekk fee di liggéey waaye fu ndaje genn kàddu moo fay am genn kilifteef moo fa am kon ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara dégg te kàddu gi di leen ko jox buñ paree ñu jox sëriñ Maam Seex boo ko defee mu sànni ci ay kàddu ñu jox sëñ Xaadim mu tëj ñu ñaan li ci des ñu bàyyi ba guddi ñu doog koo mottali mbokki Moodu mbokki xarit yi Muhammadan yi di xarit Moodu yi nga xam ni mën naa ni alaaji Ndaama mag gàmmu gi ba mu ko sosee kenn xamul ban at la waaye boobu ba nëgë ni ba nekkee ay tout tànk lañ àndoon fu Touba Fall jote kenn du dem Tivaouane kenn du dem Touba kenn du dem fenn ñoom ñëpp fii la ñuy daje kon ñooñu ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen sant di leen gërëm di fab sant yee siyaara di ko jox ci loxol pandaw mële mu tegal ñu ko ci loxol njaboot gépp ak xariti moo di xariti dan yi ak seen soppe yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ala asraf almursalin sayidina muhammadin al amin wa ala ali baytihi altayibiin altaahiriin alladina qaala allahu taala fi xaqihim liyudhiba ankum alrijsa ahla albeyt wa yutahhirakum tathiira wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu tuddee yàlla sant ko julli ci sangub sang yi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ni moo waral bés bii tey ñu ngi nuyu ñépp ku ci ne ci sa tur ak ci sa sant di jiital ci nuyoo boobu Sëñ Bachir Xaadim Awa Ba ñu ngi lay nuyoo bu baax Mbàkke di la siyaar di rafetlu kàddu yi ak xam-xam bi ak taxawaay bii ak yeneen taxawaay yi nga xam ni yaa ngi koy taxawee ci sa kër maam te ñu am ci xam ci lu bari di nuyu mboolem ñu nekk ci jotaay bi di nuyu itam sunu soppe sunu xarit sëñ maam Cheikh Mbacke Xaadim Awa Ba di koo xam ni yàlla dogal na maag moom ànd nañu fu ne ànd nañ ci lu ne ñoo bokk nekk ci AIS fanaan naa këram ba tàyyi guy mbind fanaan nañu résidence Xaadim Rasoul ba tàyyi euh, sëriñ Sidi fekk nañu ko fu ne su AIS masaana teew sax day day kontaan macha allah muy moom itam ku yaatu koo xam ni li sëriñ bi waxoon léegi rek lay wax ci moom xam-xam bi mate na ko yar bi mate na ko teggin yi mate na ko waaye ubbeeku gi mate na di nuyu nag sunu bokki bopp yi da nga xam ni tey ki yàlla dogal bu mat mooy imaam imaam Sidi Omar mi ngi nii toog jóge Njaasaan di sunu mag comme ni ko waxee woon léegi famille Kunta benn la Kunta fii ci Sénégal maam Seex Bunaama Kunta moo jóge bu lalwaar ci Seex Sidil Muxtaarul Kunti yi mi nga doon wax léegi mu yewee ko ni ko gis naa ni Soudan daal ba tey na fa diine war a mel yegg gu fa kon dama bëgg au lieu nga dellu Algérie ga nga juddoo woon ci li waaye dama bëgg nga demal ma senegal yóbbul ma fa taalub lislaam loolu maam naa ma moomu nag moo ñëw fii ci senegal sanc fii ci ndànk kajoor mooy ndànk gii képp koo dégg muy kunte ci senegal ci maam Cheikh Bounama mii nga soqee ko kon wax nga dëgg bi nga nee jaboot gi benn la njaboot gi benn la benn garab la te dàtt bi mooy ndànk cheikh bu naa ma moo meññi mboolem kunta yi mu wax nag ni ñu ngi leen di nuyu kon ci turu sëriñ Mouhamed Mahfouz Kunta mi nga xam ne mooy sëriñ ndànk mu ne moom daal kontaan na lool ci bësub alxaaji ndaama bii ndax xamoon na alxaaji ndaama yal na yàlla dotti yërmande ci moom fi mu tegoon ndànk waaye itam fi mu tegoon ahlu kunti mu ne nag waaye loolu dara bettu ko ci ndax koo xam ne dañu ne njabootu maam boroom tuubaa nga soo tarelee ahlul kunti yu moom betteel du du ko am ci loolu ndax kat sunu maam sëriñ tuubaa ku ne xam na ni lépp luy xeetu teraanga ci àdduna defal na ko fami kunta lépp luy wëllëre dox na ci seen diggante ci lu feeñ ak lu nëbbu man mii yàlla dogal na bés mas na maa ànd ak Mouhamed Muslim bu ndeer ci jamonoy Serigne Saliou ñu di ko siyaar bi ñu ñëwee ñu xaw ñoo jafeel bunt bi lool waaye bi ñu fexee ba dugg bi sëriñ bi yégee loolu keroog dafa aalu ba wëlbatiku joowaan gi féete ñi mu waroon kanam dafa leen a féete ginnaaw ni nañ indi ci kanamam ñu indi ci kanamam mu ni ñii day bi sëriñ Touba dee ndàmbal yàlla te kenn xamul lu nekk ci biir ñoom rekk ñoo ko xamoon ànd ak moom moom sëriñ Saliou nettali fa nag loo xam ni sax yéeme na kenn mënu cee jaar ci nett li mu ne nag kon ku mel noonu su fekkente ni njabootam moo nekk fii lépp loo xam ne gis na ko ci moom ci teraanga mu jëm ci ahlul kunti nee na dara du ko ci bett waaye kon ñu ngi koy ñaanal moom alaaji ndaama ci turu sëriñ ndànk nee na yàlla na suuf woyof ci kawam yàlla yàlla yokk yërmande ci moom yàlla na njaboot gi mu fi bàyyi itam yàlla taxawu leen aar leen sàmm leen ba bëgg a liggéeyal seen way jur woowu ñu mën koo liggéey ñoo ngi maam Cheikh dafa war a def waxtaan wu am solo xam nañ ko bu baax na mun nañ waxtaanam kon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. muy alaaji Ndaama Fall yal na yàlla yokk ay leeram billahi sama tànk yi ba jiitu ba ci bi mujj bàyyi ma képp a tax ma def ko parce que day nit koo xam ne yàlla mooy defar ku ko neex defaru tabaraka wa ndax dëkk boo xam ne waaw dëkk boo xam ne danga fi waroon a ñëw fekk fi ay néegi ñax ak ay mbaam yooyu xalangu góor gi ñëw tabax fii kër goo xam ni am am na benn waay bàyyi naa ko complètement keroog dañoo jub kër gi ma ànd ak Ousmane Tanor Dieng ak maam Bounama waa ji ni waaw ban dof moo tabax étage bii fii ma ni ko yow mii yaa dof ndax kii tabax fii fii mooy dëkk bi gën ci moom ndax fi la juddoo muy góor goo xam ne man ak njabootam sax ñoo ma xaw a baare waaye kon ah, nëga ni wax dëgg yàlla def naa fi émission bu yàgg waaye nag comme lii yeggagul naa xaar ba mu yegg rek ndax dëkk bu ma mën a wone ci senegal bu dul ngol-ngol Touba Fall Mbuxeex moo ma ko gënal ndax ndax góor gi nga xam ni moo fi moo def lii parce que fi mu ne ku fi defar kër rek neel bàyyi ndaam ak jërëjëf parce que bu fi deful woon dara kenn du fi def dara góor gu mata roya ngi noonu tey dama jàpp ni juddoo ci ab dëkk wala sa maam juddoo ci ab dëkk wala sa maam sancub dëkk jóge fa nga bàyyi dëkk ba as du ko def bàyyi ndaama yee na ñépp na kenn ku nekk dem fa nga dëkk nga toppatoo ji ko ndakaaru gii nii mu mel nga xam dañ la daan néeg fukk fukki junneeg ñaar te nga mën koo am foo xam ne doo fay dara doo dem nga defari ko góor gi nag woon nanu nii bu fekkente ni Sénégal bëgg nañ koo defar kenn ku nekk foog nga dem ci sab dëkk nga defari ko bàyyi ma pour man dañu waroon chaque année bi muy dund bu ñuy def indépendance ñu décorer ko moo fi indi dispensaire moo fi indi ndox moo fi indi aw yoon moo defar kër yi moo defar lépp ñoom dan ñii defuñu dara bàyyi daa maa def lépp kon yal na yàlla woyofal suuf ci kawam te man góor gi ni ma ko bëggee xam naa ne ay doomam rawuñu ma ci muy dan muy moodu Fall muy keneen muy keneen kenn gënumaa bëgg bàyyi ndaama parce que lii laa bëgg ndax man ngool ngool ga ma dëkk lépp lu ma man yóbbu naa ko fa te maa ngi ñaan yàlla sax ma yóbbu fa lu toll ni lii gaa yi yóbbu fii di gërëm bu baaxit it Modou Fall ak Samba Fall sama xarit bii jóge mbuur Kër Madior nga xam ni moo tax ma xamanteeg dan moo tax ma xamanteeg soxnaam su baax si Ami Dieng maa ngi koy ñaanal parce que moom it li muy yëngu mooy lu mel nii rek ñu ñoom dekkal nañ seenub dëkk njëmel ca ginnaaw pekkees te loolu lu ama am solo la sa dëkkum maam yàlla may la wërsëg ngay dund ay ati ati at ba faatu ba woo fa sax mbaar wala gunug ginaar boo deexee buñ la yóbboo ca pénc ma boo dekki woon defe naa da ngay daw aw xel ndax foo deful dara dëgg-dëgg waruñu la faa suul mais bàyyi ndaa ma te li ma gën a neex mooy denc biñ ko denc ci dëkk bi parce que Baye Ndama ñu bari li ñu xamut mooy waatal naa la ci yàlla ni garaatu wàllu yu la yor parce que am na loolu mënoo koo réussir doo wàllu dëkk bu bu doon dëkk su ndaw dara amu fa tey jii mu mel nii li lii lépp nañ ko ñaanale Baye Ndama moo du Fall nag yow li ma lay gërëmee mooy euh, nangu gi nga nangoo am kilifa parce que dafa baax dama gis ni dan moom jàppe woo ko sax mag bàyyi nga ko jàppe ak kilifa te loolu c'est très important nit day nangoo am kilifa ku nanguwul kenn yilif la doo masa yilif kenn wala koo yilif ci ay yat ngeen di dëkkantee ki xeex yal na la fi yàlla yàggal kontaan naa ci yow trop na parce que nit day topp ki mu war a topp ndax boo amee mag wolof yi dañu lépp ni bu fi sa baay boo nee bu fi sama baay newoon ma defal ko lii sa baay jóge fi taaw sa baay ne fa te defaloo ko bu fi sa baay newoon it doo ko defal dara yow nag yal na la yàlla sàmm sëriñ bi Mbàkke Balla yow xam nga damay defi émission yu bari ñu la ciy tudd ndax sa bokki daaray kokk yi waaw sëriñ Bachir sëriñ Bachir ñoom as ndaw ak ñoom gaa yooyu bés bu ne ci moom ci moom la ñuy waxtaan ndax daaray kokki ña fa ña fa génne parce que Sénégal sëriñ bi aussi il faut ngeen xeex ñu jéem a defar daara yi parce que njàngum tubaab mii dañuy gën a yàq rek waaye duñ ci jële xam-xam duñu ci jële judd duñ ci jële ngor dara newu ci li ci nekk mooy bàyyi leen seen i maam bàyyi leen seen i baax bàyyi leen seen lépp topp ma am na dëkk yoo xam ne sax soppi nañ tur ya soppi nañu turu dëkk te dëkk boo soppiwu dëkk ba dootu am barke Touba Fall mu xeex gii ñu ci boole moo fi indi li moo fi indi lii waaw kon nag euh, kontaan naa trop wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallama tasliman alhamdulillah rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin mbokk yi ñu ngi yëkkati kàddu yu gàtt rek ndax kàddu yi kàddu yu gàtt li ñu ndax xam ngeen ne suñ xaadim mi ma ko wax léegi bi nuyoo rek dana ma ñaanoon nañ ko daaw nañ waxaat alhamdulilahi rabbil alamin ko daaw daje fi at yu bare bare bare ma ne ko allahuma amin euh, jataay bi tey dafa am solo lool waaye daana am solo waaye gën naa amati solo ndax jàkka ji ñu ko defee mooy jumaa ji nga xam ne ñu ngi koy sumb te incha allah li ci des bareetut ñu ko daan defe fee tey ñu sumbal yàlla ab néeg fii ba li ci des bëreetut mu mel ne dañ koo daloo daloote ci bisub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci waxtu yoor-yoor maa ngi doon ñaan yàlla bu wér ne sama kilifa gi bu ñëwee mu suñu basiru yàlla fekk jataay bii alhamdulilah rabbi yàlla dimbali ñu mu ñëw ci yoor-yoor bi ñu daje fii ci jumaa ci néegu bu yàlla bi di fi tëje kaamil bi ak di fi def waxtaan yi kon loolu sant yàlla suñu borom subhaanahu wér wér kon day ñaanal yàlla yàlla ñu fi daje at yu bare bare bare ba ci barke di nuyu bu baax kàddu yi ma yëkkat nag dama ko yëkk ci kàddu ndigal wax naa leen ko léegi ndax sëriñ Basiiru mooy sunu kilifa di suñu sëriñ dañoo jox ndigal rek moo tax ñu yëkkati kàddu waaye fépp fu mu nekk ay doy nañu sëkk te dañu kon maa ngi yëkkati kàddu yi ci ndigalam waaye di jiital ab nuyoo ak ziyaar bu baax ci surafaa yi nga xam ne ñoom la sëriñ Basiiru doon wax ci ñoom léegi te li mu wax doy sëkk ci ñoom te bi sëñ Babacar Kunte yëkkati waa kàddoom da ngay xam ne faaqidu shay'in laa yu'ti nit ki lu mu amul mënu koo joxe kon la yàlla xuraan doo wax naan wa idaa xuyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha sëñ Babacar Kunta bi mu yëkkatee kàddoom delloo na ko ba mat sëkk kon yéen naka jekk ni nga ko waxee noonu la demee Serigne tubaab fa mu teg Sidi Almuxtaar Kunti yu daanaka tegu fa góor yàlla yu bari téeréem ba di Masaalikul Jinaan la mu ko fa tudd ak la mu fa indi ci ay xam-xam delluwaat ci moom def ko ci ñu bare bare bare bare kon yéen la ñu boole démbaloon du tey alhamdulilah ren jataay bii day firndeel ne sëñ Tuubaa la mu doon wax seen maam seen maam daan ko jëflanteeg moom ca baatin tey jataay bii dëggal na ko ndax booba léeg-léeg mat téeméeri at waaye maa kaana lillaahi daam wa tasal lépp loo xam ne yàlla kese moo tax day sax day jokk moo tax tey sët yi dajawaat fi tey kon sëñ bi mi ngi leen nuyu bu baax a baax a baax di leen gërëm di rafetlu kàddu yi bu baax a baax a baax waaye di nuyu bu baax euh, sunu mbokk yi nga xam ne moom sëñ Basiru doon wax léegi sëñ Xaadim nga xam ne mooy kilifa dëkk bi li euh, sëñ Bass wax doy na sëkk ci waajurum sëñ Abdou Baaxe waaye xam-xam bi mate ko modestie bi mate ko tawaadon li mu def lépp ak wàcce bopp na te man tawaadon lillahi rafahu llah képp ku wàcce sa bopp ngir yàlla yàlla yëkkati la ndax wax nañ ko ba tàyyi na toog fii mu bañ ne fii ci suuf lay toog kon loolu mooy atawaadon lillahi yàlla da koy gën a yëkkati rek waaye di nuyu baax sëñ Abdou Aziz mu sëñ Modou Fat Xarit mi toog sëñ Abdou Latif macha allah Euh, ñoom it ñu bokk ak ñoom lépp waaye dëkk bi tamit muy seen dëkku maam ni ko sëriñ Bassirou Mbacké waxe di nuyu tamit imaam euh, Ndiassane bi euh, suñ kunt waa Cheikh Sidi Omar ñu ngi koy nuyu bu baax daa gën a taaral jataay bi wax dëgg fa yàlla ndax nekk ci famille bi rek doy na sëkk waaye nekkaat imaam beneen mbir la kaddu yi nag yu gàtt lay doon di sant bu baax di gërëm ni ko defoon daaw ci waxtu bi moom lañ ko defawaat ndax damay wax ne dafa am aaya wu nekk ci alxuraanu karim te tey moom la rek jataay bi yàlla di ci tagg ay jaamam di leen ci kañ di wane seeni melokaan ba agsi ci biir foo xam ne dafa tudd lii sëñ bas doon wax mooy njaboot bu sell ndax yàlla bi mu waxee ne wa ibaadu rahmaani alladina yamsuna ala ardi hawnan wa ida xaatabahumul jaahilun qaalu salaaman ne samay jaam ñii nga xam ne bu ngeen leen gisee xam ne ñii ñooy samay jaam ne neex naa xàmmee mooy ñi nga xam ne boo leen gisee ñu dox ndànk la ñu dox ci ko suuf Eh, waaye nit dee wax ak ñoom sax ci wàllub réer ba bëgg leen a ñàkk teggin dañ leen dummóoyu ne leen ñun day suñ kudd jàmm la ràcc yàlla di misaal ñooñu mooy ña nga xam ne eh, guddi yi dañ ko taxaw di julli di naafila ba ca biir mu ne mooy ña nga xam ne buñ tuddee lu leen buñ leen fàttalee yàlla sunu borom subhanahu wa taala danañ tiit delluwaat yàlla sunu borom subhanahu wa taala waaye yëmul foofu daa dugg ba ci biir mu ne walladina yaquuluun rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama loolu nag eh, ki juumut lekk ki wax fi taxaw ne alaaji daam wàllilu woon juumut ndax wàlli mooy koo xam ne léppam da ko teg ci ni yàlla bëgg mu doxale ko noonu ba wuy ci yàlla subhaanahu wa taala xam nañ ne aay yu ma wax ne walladina yaquluun rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman alaaji daam suñu borom subhaanahu wa taala defal na ko ndax yàlla day tagg bi jàgg mu ne mooy ña nga xam ne jaam ña nga xame ne tamit dañuy julli ba sëlman wala tëdd ba guddi yëkkati seen loxo ne yàlla yàlla nag ma may njaboot bu barkeel waaye njaboot googu yàlla na nga may sama xol sedd ci ñoom ba li ma bëggoon lépp ñu def ko xam ngeen ne jataay bi sedd na xolu alxaaji Ndaama fal sedd na xolu képp koo xam ne xamoon alxaaji Ndaama fal nga ñëw fekk jataay bi mel nii da lay wóor ne ki fi ki ki ki taxawu ki fi bàyyi ndono li ba ñu mën koo taxawal kooku wax dëgg yàlla dangay xam ne xolam sedd na fa mu nekk waaye yàlla lam ca teg nag da leen gaa ulaayka yujzawna al-ghurfata bimaa sabaru wa yulqawna fiihaa tahiyatan wa salaama yàlla nee na nag ñooñu bu ñu jógee ci àdduna nag bàyyi ko fi yóbbu naa leen ci àjjana gën a kawe waxi yàlla la kon yàlla da ko garanté ndax lii rek misaal la bàyyi njaboot mel ni ñu ma taxaw lu mel nii yàlla nee na bu ñu ko defee pare nag yàlla man yàlla dama ne yóbbu ci àjjana na ma ngi ci àjjana gën a kawe waaw xaalit ne fi xasanat mustaqar wa muqaama lu kon noonu la ko yàlla subhaanahu wa taala jeexale léegi nag li ci des mooy moom wéy na ñun ñoo ci des ñun ñi fi des tamit xam nañ ne lii nga xam ne moom la ñu continuer nii te sëñ mi nga xam mooy kilifa gi di ko continuer nii sànq ma gis njaboot gi nga xam ñooy seen doom muy doom sëñ Modou Fall ak ñoom suñ Bachirou nga gis leen ñu leen di teete ci jataayu mel nii da wóor ne insha allah rab lii day continuer day yegg day continuer day yegg ndax nit ki lépp looy dund di ci toqantal sa njaboot di toqal say doom loolu insha allah day continuer kon dal nañ xel ne wér ne yéen a ngi mujj parce que waaye du réer ci yéen ndax yéen a ngi tàqataat njaboot gi di leen toqantal ñuy teg tey suba léegi ñoom laa gis seet leen ñooy lal ñooy lalli ñooy teg baa si ñuy def lépp kon loolu dal na xel ne ah fa leen seen waajuru tegoon yéen a ngi fi teg seen njaboot kon la des mooy njaboot gi yéen ngeen gën a góorgóorlu xam ngeen am kilifa yu mat sëkk ñoo xam ne Sénégal kenn yebbu leen seen res jox nañu cër jox nañu worma ndax seenug baax ndax seenug lewet ak seenu tabe kon daal kàddu yi du gudd ndax li watoon wax lépp sëñ Basiir wax na ko sëñ xaadim loolu la ñuy jeexal kaddu yi jox sëñ xaadim bu ko defee mu tëj jataay bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di ko darajaale ay kilifa diine tudde na ko Cheikh Mouhamad Lamine Baara defe naa loolu war naa man ñaar fukki at ci wala ñaar fukki at lu topp ndax booba bi ñu indee carte yu jox ko sëñ Seex sëñ Sidi Muxtaar booba yàgg na jamonoy sëriñ Saaliwu la man la woo jox ma ko boole ma ak alaaj jaaji mbay yebal ma fii ma ñëw teewal ko fi booba ak léegi nag at mu jot ñu fab kenn ci kilifay réew mi tudd ko alaaj ndaama bayit wi sëñ Tubaa di wax naan fala tuaadu man raaytum faahu yuxuriju laa ilaha illa muhammadu rasulullahi moom ñépp la njaboote woon amoon na wasila nag muy sëriñ tubaa ak seex sàmba waaye kilifa diine yépp la fonkoon euh, joxoon leen cër ndax gàmmu gi ku ne tudde na ko tudde na ko tijaani tudde na ko xaadiri tudde na ko laayiri tudde na ko ñëpp ren gi nag mu ñu darajaale bis bi sëriñam muy sëriñ mu Moussa Massamba yàlla na ko yàlla dool yërmande di waajur sëñ xaadim mi di waajur sëñ Abdou Aziz mi ak waajur sëñ Abdou Latif nekkoon sëriñu Modou Fall nekkoon kilifa nekkoon xalifa sëñ Masamba liñ fi jàng ci kaamin yépp sëñ xaadim fasaale na leen ci biir ak sëriñ aatu Diagne moom it ñu ko ci fàttalikuwaale di ci fàttalikuwaale it sun rakk ju baax jooju di sëriñ maam Cheikh Fall ñu tudd ko Cheikh Issa Dieng liñ fi jàng ci alxuraan nag yàlla na ko yàlla sotti ci ñoom kon ñu jox kàddu gi sëñ Xaadim mu àggale bu ko defee daal def ñaan ñu dellu ca kër ga. teraanga yu nekk indi nañ ko fi indi nañ fi xeetu teraanga bu nekk indi nañ ko fi kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm sëriñ Mamoor Masamba bu ma nee sëñ mu Moustapha indi nañ ko fi mooy sëñ ma sàmba sëñ Mamoor mooy sëñ Moustapha mooy sëñ Moustapha ndax ñoo bokk soxna Aminata Amar ñoo bokk sëñ ma sàmba ba pare ma wuutu sëriñ mu Moustapha ci toogaay boobu mu toog yàlla na ko yàlla yàggal sëriñ Youssou Diop. dañoo amoon kóllëre maam Cheikh maam Cheikh nekkoon suñu rakk ba pare nekkoon référence daan ànd ak ñoom nekkoon ndaw loo xam ni ndaw dangay gis cawarteem mu jëmale ko ci ay caaxaan wala adduna waaye moom cawarteem lépp ci Serigne Touba la ko jëmale. gàtt naw fan yàggu fi waaye daanaka mën naa ni kenn mësu koo gis mu sol yërey tubaab du ma ne nag yërey tubaab kenn waru koo sol ndax bu jotee te mel na mu war a mel jullit bu ne mën na koo sol waaye nag moom eh, eh, ni mu daan doxee. mooy référence la defoon ñooñu foo ko fekk yëre yiw nangoo sonn lii sunu doom yi def sunu jarbaat yi ñoom Basir ñi nga xam sunu rakk la moom Basir mi sunu rakk la ñoo bokk bàyyi ba pare mu wëlbati ko doon sunu jarbaat ak euh, ku mel ni Makhtar doomi euh, euh, Mouhamadan ñoom maam Alassane ñooñu ñëpp ñoo àndoon ak maam Cheikh mu nekkoon seen waajur ñu daan taxawee lii kon tey ni ko sëñ maam Cheikh waxee maam Cheikh nekkatu fi waaye ñoom ñi ngi fi ndax gis nañ seen taxawaay te kuy ñaan yàlla njaboot lii rek ngay ñaan yàlla kon maam Cheikh yàlla na xëppee àjjana yàlla na ko yàlla defal jàmm fam nekk yàlla defal ko yërmaane ndax bis bi moom yëg na ni yëg na ni ñi ngi toog fii di ko fàttaliku yëg na ko te man xam naa ni yëg na ko ndax xale woon boo xamante ne si ni tegoon na tànkam fi mu ko war a teg sawaroon lool ci lu baax bëggoon Touba Fall boo fi daan ñëw moom rek ngay gis mooy daw ko ñëw waaw kon yàlla ko yàlla dolli yërmande waaye is bu tarxiya ñi ngi leen di sant bu baax ndax lépp lu ñu fi def seen bopp lañ ko defal ndax alaaji ndaama da leen a bëggoon te njabootuk alaaji ndaama yi dañ kóllëre gi amoon ak maam seex feddali nañ ko ci ñoom jàpp nañ ko ci ñoom lépp loo xam ne nag mooy kóllëre lu koy dundal ak lu koy saxal waa kër alaaji ndaama ñi ngi ci loola di leen tàllal loxo kon ni ma ko waxee léegi rek sàmba maa ngi lay ziyaara yéen xarit dañuy xaritu Moodu yi bu ma tuddee Samba tudd bay di ba bamee tudd imam imam pandaw tudd naa ñëpp ndax ñu fi nekk ñëpp xàmmee naa leen mën naa jaar seen tur kenn par kenn kon nuyoo boobu ak ziar boobu ñu ngi koy teg seen ñu ko ci loxoy kóllëre yëpp gone yi dëkk ci dëkk bi it ñu ngi leen di sant ndax lu ñu fi def seen bopp lañ ko defal ndax ñoom dañoo bëggoon alaaji ndaam mu nekkoon seen maam nekkoon seen waajur kon taxawaay bu ñu fi taxaw rek seen bopp lañ ko defal kon gone yi yàlla na yàlla def ay mag yàlla taxawu leen te seen ndaw geeg seen mag yëpp Serigne Touba téye leen ko ba bu ëllëgee ñu bokk ci référence yi nga xam ñooy dundal lii nga xam ne ñu ngi koy def fii ci dëkk bi kon sëñ Xaadim bismillah asrahu ashana qad fajaa bi jaahi afdali man lillahi qad lajaa hamdi li rabbin karimin la sharika lahu wa sadri al yawma nuuran zaati'an mala'a muhammadin salawatullahi fi abadi alayhi fi hizbihi kulli bihi kala'a ad'u ilahi allazi hamad mawahibuhu li jumlatil xalqi ma yaxtaaru man bara'a ناجيته جل أعواما وكرمني تكريم هادي وكل من لخن برأ رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الصر من قرآنه قرأ هدمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم القلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن حود ارحم جميع الورى يا هادئا ردى يا مالك الملك يا من جل عن حود ارحم جميع الورى يا هادئا ردى محوت ما قد نهاه القلب من درر بجاه أفضل من لله قد لجأ يا ربنا إن الورى تضرعوا لأوليائك معا ليسعوا يا ربنا إن الورى تضرعوا للياي كمان ليصوم إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكلنا وجعلنا لطفا وعمدا يا أعد يا من تعالى لم يكن كفنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا إن الورى تقدر لأوليائك معا ليصوم إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فقل لنا وجه لنا لطفا وأمدا يا يا من تعالى لم يكن كفنا أنت الكريم أنا الخديم دهرا أديم فيك السناء نعم الحبيب نعم القريب نعم الحبيب مع القفاء أما الإيالة كفى القتال مع المجال بلا رفاء أقوى السرور أبدا الخيار خاد سرور لسر الرجاء سفى سقيما نفى الأليما خاد الخديم إلى نجاي قد فاك قبل السلام قد باس فضلا فضل ولاي فنفع جعي جل نايب مجاجيب لا في مزايم فاز الوعي مثل الغيور إلا القصور بعدي نزاي بدراي مصدل خياري إلى الغزور بعد نزوي بربراي إلى الغزور بدرا قد فاك كبلا قد باس فضلا فانظر ولا وانا مجاي سيخ مودو بارا مباكي malaria jolli jëm ca aras mu taw guy mindu doon taawub sëriñ baara yaral malaayika ñett lan ñoo bokk ñoom taw waara suur na Serigne Baara def leen ñu nu màggal Cheikh Mamadou Lamine Cheikh Mamadou Lamine borom bun yaana mayam ya yaana kooku mooy sibtu jaara jaasi dogal ba cëkkun la yàlla daas ba mu ñëw mu jox yonen ba mu far jox Sidi Lamine Baara yona ma dellu fa baat jaasem ba mu ñëw mu jox Bamba mu far jox Sidi Lamine Madu Lamin baara baara ku la way am ndam baari aw leen baaray Madu Lamin Madu Lamin baara baara ku am ndam baari murito baaray Madu Lamin dëgg dëgg Madu Lamin ba kee jara way baari murito baar Ahmadou Lamine ma fi bas Mbàkke jaraway mbaaj murid Bara yow lanu fii yow lanu yow lanu yaakaar abadan bari saxaaye doon def liñ ñu Mourtala Mbacke suñu Saalifu Mbacke kilo huit kilomètre gi kenn waxu ci jaaduwul ci dëkk bu toll nii te ku nekk war na te am fulla ak fayda bu mu am wala déet te lu fi am am na réew boo xam ne gouverneur nga fa ak ay ministre ak député amul seen kër te du Moustapha am Serigne Bachirou jërëjëf ci yow lay jikkee jërëjëf li nga taxawal sa dumu bàyyi te yaatal leen ku dul yaatal boo génne àddina yàlla daf lay dugal ci benn pax boo xam ne dafay mel ne bun bunu pusu jërëjëf jërëjëf li nga béy ci sa toolu maam gi mooy France mooy Europe mooy feneen mooy feneen te kenn musula wax benn baat bu ñagas walla baat bu ñaaw dëkk bii dëkku àllaaji Ndaama Faal alaaji Maamun Ndaama Faal di taalibe Sëriñ Masamba Mbakke duun ku te nduuna daa garaaw ci kaw nga duun ku te lu dagan ak lu jaadu ak lu xam ne mu am fii kër maamam la mu jël dëkk bii kër baayam mi ngi nii maamam moo leen dana leen dimbali tabax leen jamaa def leen seen armel wëreel dëkk bi moom waranduni jàkkaarloo mu ni dana bëgg xamal ni dana yokkal daraja dëkk bi dana yokk mara martaba dëkk bi dana def lu xam ne kenn defu ko mu jaayante ak yàlla ndax lu waay jaayante da ngay jaayante ak yàlla ak sabarka waajur xamal nañu itam bu may daddu addina xamal nañ ko sama mbokku sëriñ yi ak sama nawle yi bu mekken ni fan fii mbakka mbakka yi kenn laamul kenn kenn waxtu benn baat ñëpp àndandu jugu fu nekk ñëw fëg si ko tey ko ci néegu yàlla gi te yàgg na jooy li de te xamee dana àgg kenn ndaama bas kay maanu allaaji ndaama faal mooy bu des si ñetti atafaa mu génne àddina nu nekk ti magal Tuba wooñu mu ne Chérif dem laa soxla Moodu woo ma Chérif Dieng lu mu def mu ne Chérif moo duñu mu ne sama ñu ñoo ñëw léegi mu ne pare na woo imaam bi woo den ñu ñëpp ñu dajale ñu ci kër den mu ne ko den maa doon président maa doon njiit maa doon lépp tey nag lenge gi mais amee yow laa ko jox lenge baa ngi nii feebaruma dofuma dara jotuma lenge bi dama la ko jox léegi léegi te ku nekk ci sama njaboot dina la topp ene Cheikh Fall ene ko la xaar àjjana mu ngi mu ngi nii mbokkam yépp ngi toog Cheikh Mbay kenn de dafa kenn kenn kenn moom dafa tàggoo baale ay mbokkam muy lenge bi den yow laa ko jox tay den mu tam ah ba ba xabaltu a daytu man lu mu jox rek daa def mu ne ko Moodu dimbali den te nga jàppale ko ana Alassane naka seen saritu guddi ak bëccëg sarit la wax de sarit moom du par essence sa heure bu ko tàkkee rek mu dem mu ne xabaltu wala ditu ak rakkam yi ak màggam yi lii mooy fu nda alaaji ndaama xam ne du nit waa dineer kenn waxu ko ni defal lii moo ko defal boppam Tuubaa bi ko Sëriñ Saalifu Mbakke bu tëdd bu yaarame bu baax bi bu xam ne ku nekk bay nga sawaar te Tuubaa te mu des xalqum du xalqumu kenn ti Mbakke Mbakke yi xalqumu Sëriñ Saalifu Mbakke la wala déet ene ko waddi moo ko ñafe moo ko ñaar yàlla nangul mu def tu dara mu woo kilifa yëpp ku nekk daggal ku kër daggal àllaaji ndaama gox mu ne ko ak sa njaboot allah ji muy danaa ci def lu mu lii mooy taalibe li muy sëriñ famille bi nag bas man awma seen fii ndax dañu ma gàddu rekk taf ma ci seen biiru xol gëmatuma fen dëmatuma fen ci gàmmu te taalibe xaadar bi ma tourné bi pëpp suuf te réew bi ak sama bokk shérif néegi ngi nii néegu Chérif Dié fii moo du ko def màggam bi mën a ko song ko mbaa néeg bi pare na mbaa néeg bi pare na dama ni cëpp rek ubbul ma néeg seen bàyyi Tuubaa tabax néeg te kawu terrasse am ak pereng ak saal ak douche ak lépp mu ni Chérif Dié ci kaw sama terrasse bi Chérif Dié rek a fay fanaan ay waaye ku la loolu lan nga koy def kóllëre mu wasu loolu mais di ko seede sama mbokk kunta kunta yi nga xam man ak ñoom la te àddina dox daje dox daje dox daje yal na yàlla defal jàmm kii tax ma sopp tax ma faral tax ma ànd ak moom ak jëm gi kii abidin ñu mu ñaar la paa bi tànni moom dafa tànni nii tam de kii mu ne ku nekk imaamu jàkka gi wala déet kii mu ne ma xale la Qur'an utuma benn mbàkk bu jàngal Qur'an yaay jàngal sama duumi Qur'an ak waa daara gi waa koñ bi mu sant konte waaye ko rafet àddina mën a wasu loolu bu fi toog allah ji ndaama amal na ku col gëmmu col koor ndogu ak yére wàcc na ak ñëpp de nga lépp lu wax su bëjjant bi sooxee te tudd waa kër Masamba allah ja ak kenn jaw leen ak benn mëndéef te tere la ñëpp cheikh taalib boobu du mu cheikh bu bu cheikh saad bu cheikh taalib boobu moo toog Abdou Hadj Mbàkke toog yeneen xalifa yi toog moo ko jëkkal ñaawattar waamal safe ko bu kër Cheikh Bakar Dëkkoore Pikine fokku mu bul gées ndagga ko turwaamal sa ñaawar ko basin jox ko yàgg na tere jullit yi te yàlla na ñëpp fekke ko dëkk bii kuuti bëgg a jur duum bu neexul yàlla jur ko feneen kër nga moytu Touba Fall wasalaam julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal sëriñ Touba di jaajëfalit gaa yi yàlla yi nekkoon ci réew mi yëpp di liggéey ngir yàlla di liggéey ngir yàlla gaa yi yàlla yi nekkoon ci réew mi yëpp di liggéey ngir yàlla nga xam ne moo andi lii lépp seeni njaboot seeni takk ndeer teew nii tey di wax ne eh, mujjee loo xam ne dafa waroon a jiitu eh, tegtalewul ak gannaawal eh, dafay tegtale rek ne mbir boo ko fonkee da koy waajal bala nga cay àgg kon sunu wayjur Cheikh Moustapha ak sunu doomu maam Cheikh ak euh, Aliou mbay doon na ma tudd ay bokk yoo xam daanañ ànd di dundal bis bi mu ne nañ leen fasaaleel ci liggéey bi ñooñu ñëpp ak maam taxa sunu maam tuddoon nañ ko ñu tuddaat ko mbokk Abdouka ak Pape mbay ak ñeneen ñu tuddal ñëpp te nekkoon ci dëkk bi daan ànd ak ñun liggéey bi ñu musuwaat ci seytaane def salaatu ala nabi def suratul ixlaas mu ànd ak bisimilahi rahmaani rahim fukki yoon ak benn ñu tëjewaat ko salaatu ala nabi ñaan sun borom tabaraka wa taala ci darajey borom bis bii sallallahu alayhi wa sallam barkeb Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo joxe woon ndigalul sanc béréb bii ba yàlla dogal mu agsi fi mu agsi sunu borom defal nu loolu njàng munu gërëm jaamu yàlla gu mu gërëm te jotal loolu ñu ko ci sunu wayjur yooyu sunu maam yooyu sunu doom yooyu sunu bokki jullit yooyu ak mbooleem fu jullit ma nekk ci àddina bi xaj nañ ci bis bi àttan na ko borom bis bi àttan na ko li ma ci toftal bu ñu noppee ci loolu mooy kàddu soññ ak ñaax rek boo xam ne dafa jëm ci sunu doom yi sunu jarbaat yi Cheikh ak ñi mu àndal liggéey bi yàlla na leen yàlla sàmm te leen te wattu leen tey mahmadan ak njaboot gi yépp ngeen xam ne liggéey bi mën nañ ne mi ngi door a tàmbali ñeme leen te dem ci kanam ñi ngi ci seen wet guddeeg bëccëg waxtu wu ne ñi ngi leen di bàyyi xel bu leen ragal dara xàllal nañ leen yoon wi maa ngi wax njaboot gi topp ci seen gannaaw yépp it laxasaayu leen def wenn say topp ci seen gannaaw sunu jur wi liggéey na de te ku liggéey añ aljasaa'u min jinsil amal bàyyi ndaama liggéey na kon nañu fas yéene sàmm liggéey bi ba liggéey suñu liggéeyu bopp yàlla dara taliwu ko te ku man la te ku xam borom yéene ju sel la nañu defaraat pas-pas yi rek te am yéene te xam ne euh, jàngale lislaam yàlla du jële ci kaw suuf ñu koy def ba feek jant bi di fay aboubacrine siddiq radiallahu taala bi muy door a toog xalifa sallallahu alayhi wa sallam dëdduñu xel yépp gëlëm am ñu ne woon duñ joxeeti asaka ndax gisatuñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waxuma asaka de waaye buum yi daan yeew gàtt yi buñ ko indiwul daa leen déclaré guerre kon jàngale lislaam foofu la tàmbulee moo ñëw ba ci bàyyi ndaawam yi kon mahmadan ngeen xam ne suñ boroom lu mu def rek noonu la yan bi mel na ne lu diis waaye lu weef tooy lay doon yàlla dana leen jàppale ak barke wayjur yi yàlla leen yàlla gën a sàmm te defal leen tawféex amin kon ñu jàng dog bi muslu ci seytaan def salatu ala nabi fukki lixlaas ak benn defaat salatu ala nabi yéene ko maam Tafa Cheikh Moustapha ibnu Cheikh Massamba ak maam Cheikh ak euh, Abdou ak Pape Mbaye ak ñi ñu jullit ñëpp yamxu llahu ma yashaau wa yuthabbit وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب muy Tawfekh jugee